li ma leen ci waxoon rek Macky Sall moom li Baara Ndiaye wax keroog it bu fekkee ne ma xam jàll moom gëm na di gëm gëm lu ne Adji Sarr ñu ko violé dossier bi du lu siy ci di réglé c'est terminé loolu mooy li nga xam ne moo leer waaw gannaaw ma xam jàll lim dégg lépp ak li ko tegal lépp mooy gëm-gëm ne dañoo violé Adji Sarr dañoo yóbbu dossier bi ñu àtte ko boobu dossier moom c'est terminé lu lu siy ci di réglé léegi nag que c'est un français responsabilité ma xam jàll na jël seen responsabilité fenn fu ñu yara fu mu fu mu topp di jaww rek neex nit dox boo gisee ñu jàpp ko parce que dafa am influence affaire bi parce que commencé parce que suñu jéem dafa amoon influence affaire bi waaw léegi nag amatul werante yéen ñu ne la ay saaga yëpp suñu réew mi doy ku dul naa fexe di nga saaga parce que fii ñu quatre seen la fa am day ñoo ko nekk foofu la Sénégal toll de ma part personnel si dossier bii nii nii dara dara du ma ci bett incha allahu rabbi parce que dama see jël sama propre responsabilité si lépp nag waaw dara du ma si bett man maa mun nangu si àdduna dossier bi lu ma si bettaat bu ma fekkoon à quatre heures matin à trois heures du matin à une heure du matin à may doog a tëdd ma dégg na ni yëngu na du bett dama si jël sama matukaayu bopp parce que lii man maa ko teg sama bakkan gii force day jàll wala ma dee uute ko man loolu laa gëm jàpp naa ne képp kii dund patriotisme bëgg président Ousmane Sonko taxawaay boobu nga ko war a taxawee lu mu leen jaral ral si def lu bon nan nu defa lu baax ba nu gañe lii te di àjjana force insha allahu rabbi dara ma si bee nan def lu leen neex la leen cay fekk ñoom nan ko assumé dañu jàppoon ni moom carrément lii day nooyoon yàlla nooyalu ko te yàlla mi ko nooyalul woon mu ngi fi ba léegi allahu rabbi nanu essayé waat maa ngi leen di ziyaare euh, di leen jox seen wàccuwaay di ñëwaat di waxtaan ak yéen euh, ci waxtaan bu ñu bëgg a partager ñun ñëpp Euh, pour tàmbali déjà notre frère euh, Nit Dof jàpp nañ ko sànq euh, defe naa yéen ñëpp vous êtes au courant waaye loolu pour man du information ndax xamoon nañ ko xamoon nañ ne fa lañ jëm ak moom te xamoon nañ ne Nit Dof c'est quelqu'un de très influent un jeune très brave donc il fallait ñu jaar fii ak moom waaye dama bëgg a yëkkati quelques kàddu jëmale ko ci dossier bi euh, le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr a été clarifié à tout ses points waaye dinaa leen wax ne ñoom ba ñu tàmbalee ba léegi benn kàddu ba ñu tegoon seen tànk fa la ñu teg seen tànk ba léegi mooy procès mooy dossier bi am na dëgg procès dossier bi amul dëgg procès li ñuy jiiñ Ousmane Sonko am na na ñu dem procès li ñu dul li ñuy jiiñ Ousmane Sonko amul nañu dem procès waaye damay ñaan sénégalais yi bi laay ñaan ñu préparé wu parce que man Ousmane Tounkara je la amoon noon dama bëgg ñu xam ne heure dee bu jotee du heure dund heure dund bu jotee du heure dee maanaam kenn du dee te sa waxtu dee jotut loolu il faut ngeen comprendre ko maanaam benn doomu aadama yàlla sàkku ko ci àdduna bi ngay dee te sa dee jotul mënul am beneen cas aussi benn doomu aadama du dund te sa waxtu dee jot waaye lépp lu ci waay di def rek na ko sooraale na nga comprendre ne l'heure est grave maanaam waxtu bi ñu nekk waxtu bi dafa garaaw l'heure est grave Sénégal mën naa jaar fi libéré ba faw walla mën naa jaar fi takk ba jeex takk wala mën naa jaar fii dëng ba faw loolu yëpp ci ñun lay dépendre waaye comme ni ma leen koy waxee rek waxtu dee bu jotee jaam rek mooy dund waxtu dund bu jotee kenn de loolu il faut ngeen xam ko mais li ma bëgg ñu def mooy ñun ñu ànd ak dal le président Ousmane Sonko il a été radié en 2014 2014 ba léegi ndam rek lay am wax nag dafa laaj dégg-dégg de 2014 ba léegi Ousmane Sonko ndam rek la am ci liñ ko laal yépp parce que dafa gëm yàlla jox léppam yàlla dénk léppam yàlla te yàlla moomu moom moo ñu créé ñun moom moo ñu sàkk ñun bi ñuy ñëw ci combat bi Ousmane Sonko woowu ci kenn kenn ku nekk tu as pris tes responsabilités et tu fais ton devoir citoyen moom lay fàttali doomu aadama yi bis bu ne bu la nit ne wala jërëjëf wala jaajëf yéen a changé àdduna non non non on fait notre devoir citoyen yàlla daf wàcce woon ay yonent indi ay saxaaba ñu ànd ak ñoom ba fi saxaaba yi génne ay wàlliwu yàlla ak ay boroom xam-xam continuer mission boobu mission boobu ba léegi mi ngi dem donc xam nga ku xeexoon l'islam moom tey daanaka yow weet nga ci sa xeex 2016 2016 merci Ahmed Fall 2016 2016 ba léegi Ousmane Sonko fa mu teg tànkam fa la ko teg 2014 2014 2014 pas 2016 2014 ah 2014 2016 bu leen ma réeral 2014 la woon lañ ko rajee euh, dañuy teg suñu tànk ci yoon te xam ne yàlla mi ñu sàkk jël na décision finale bi ba pare waaye comme ni ma koy waxee yàlla yàlla béy sa tool nañu jël li nga xam ne ñun moom moo baax ñu ciy dox nañu déglu nag nañu déglu parce que Pastef parti la boo xam ne ni mu tëddee dafa baax trop bu ñu xaar Ousmane Sonko pour mu nañu ñu ñu génn xeex génn def lii ndax Ousmane Sonko du woote yu mel noonu parce que moom dafa gëm ne mission am dañ ko ci yónni te incha allahu incha allahu rabbi incha allahu rabbi Ousmane Sonko mission bii dina ko accomplir incha allahu rabbi cette mission sera accomplie mais man dama baaxoowul gaaw a wax maanaam jiitu ko moom ci wax nañu déglu Pastef dinañu communiquer xale yi laay waxal de dimbali leen ma ngir yàlla rek nañu déglu kilifa yi communiquer ba pare communiquer rek laa wax. à partir de cette communication ñun bu boobaa dinañu mën a jël suñu ay décision waaye nañu déglu kilifa yi communiquer lii test la nañu déglu kilifa yi ñu communiquer déglu leen communication nañu déglu xeex ca lañu jëm dama leen koy wax xeex mortel combat ca lañu ñu jëm ak Macky def nañu raawoon wan ñu duma ko rawoon tout lañu jëm box box box xam ngeen box maanaam li ngeen xam muy combat wu box yi ngeen xam yépp maanaam major major fight mooy xeex yu mag yi douze round la ñu duma nañu Macky Sall round wan ba pare second round la ñu jëm ak Macky Sall second round la ñu jëm ak maki Sall mais nañu déglu kilifa yi nañu déglu ba pare nañu déglu le président Ousmane Sonko il communique dina communiquer te bu communiquer ñun dinañu mën a xam suñu feuille de nañ ko déglu mu communiquer ba pare nañu déglu bu ñu yàkkamti ndax man mii di wax ak yéen fi bu ne nii maa ngi baax bëgg naa exploser waaye mënumaa exploser parce que damay déglu ba pare nañu déglu kilifa yi ñu communiquer ba pare on naka qu'à bu ñu yàkkamti bu ñu yàkkamti de bu ñu yàkkamti nañu déglu la président Ousmane Sonko mu communiquer ba pare ndax ñoom ñun li ñu dégg dégg nañ ko ñun li ñu jot ñoom jot nañ ko donc nañu def ndànk déglu la président Ousmane Sonko mu communiqué ba pare su communiqué ba pare incha allahu rabbi lépp luy communication bu ñu war a communiqué dinañ ko communiqué gis nga yàlla wallahi yàlla du nit et Dieu n'a jamais tort déglu leen kàddu gone Pastef bii toog ci mboolem Pastef daje Pastef barki démb mu yëkkati ay kàddu démb mu yëkkati ay kàddu yu yu am solo. mais comme ni ko le frère Aldima Sow waxee dañuy def une contribution man fi ma bëgg a accès mooy fan lañ toll ci xeex bi parce que je crois que Aldima Sow waxam mi ngi ko accès ci fan la ñu jugee beneen bi mooy constante bi nga xam ne moom la wane moom la histoire que li nga xam ne mooy constante mooy. ñaari camp ñoo mus a am ci kaw suuf loolu du Sénégal kese de kaw suuf la mooy xisbullah ak xisbu shaytaan boo demee suratul mujaadala loolu la ñuy wax ak xisbu shaytaan bépp kuréel boo xam ne li yàlla wàccee doomu aadama yi ci kaw suuf pour ñi bokk ko dund si jàmm dund ci màndu dund ci justice dund si dirige da nga jug pour spolier loolu xisbu seytaan nga bokk kuréelu seytaane nga bokk bépp kuréel boo xam ne la tax a jug mooy nit ñi noot biñ leen noot nga tinki leen parce que loolu la benn saxaaba waxoon bi ñu demee di xeex benn buur si jamono yonent bi mu ne jiit naa li nuxrija al ibada min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad ñun liñ tax a jug islam mooy jëlee jaam ñi ci jaamu seen moromu jàmm dem jaamu ki nga xam ne mooy seen borom donc la recherche de la souveraineté la quête de souveraineté dafa nekk loo xam ne nañu xam ne dafa am dimension spirituelle yonent bi moo wax ne képp ku téye sa alal maanaam wàcc liggéey ba ngoon jot ñu fay na salaire bu cinquante mille nga xam da nga mel sama genre yu bëri woo nga ngay dox agresseur dogaale la ne la dama bëgg a nangu li nga yor nga ne ko maa bañ joxuma la ko yonent bi nee na bu ngeen xeexee ba mu jël sa bakkan ajana nga jëm waaye léegi ku kuy xeex pour alalu Sénégalais yëpp fan nga li ma bëgg ndaw ñi xam mooy c'est-à-dire xeex bii ñu nekk ku ci dee perto bu leen ko seen yaay wax bu leen ko seen papa wax bu leen ko seen xarit bi toog si bopp koñ bi di fubal di naan ataaya te xeexul wax il faut que loolu mu leer c'est une dimension loolu loolu dafay tax ngeen am ay ressources internes yi tax ngeen xam ne li ngeen di xeex amul perte amul perte soit résultat day am daal le court ou le moyen terme mooy ngeen jot ci nguur wala bu résultat amul dans le moyen terme ëllëg dina am génération yoo xam ne comme ñun ni ñuy inspiré woo ci Mamadou Dia di inspiré ci Cheikh Anta Diop dinañ poursuivre l'œuvre kon amul perte fi nga xam ne bëgg naa fa aussi. lii waa ji wax dafa somarise li nga xam ne ñun moom la ñu bëggoon wax lépp maanaam dafa tënk la nga xam ne lépp moom la ñu bëggoon wax moom la waa ji tënk ci benn kàddu bu gàtt donc lii mooy wax ji xam leen ne képp ku dee ci combat bii tu seras au paradis martyr ngay doon képp ku dee ci combat bi martir ngay doon te képp ku xeexul ci komba bi yow ci ñu bon ñi nga bokk te loolu chaque jour mu feeñal boppam chaque jour nga gis phénomène bu bees bu feeñ chaque jour nga gis lu bees lu feeñ chaque jour nga gis phénomène bu bees bu feeñ donc samam gaay yi ñaan naa leen ngir yàlla ak yonentam bu tedd bi nañu bàyyi rek Pastef communiqué pour ñun ñu mën a jël suñu ay décision nañu may rek kilifa gi communiqué mu sell mi wóolu nañ ko ci ay kàddoom nañu bàyyi mu communiquer rek bu boobaa ñun dinañu mën a tàmbali li nga xam ne moom mooy suñu œuvre ndax man sama ngëm-ngëmu bopp laa wax man waaye ñoom it xëy na dinañu gis loo xam ne ñun gisuñu ko comprendre leen ne leur du combat a sonné il faut se préparer parfois tu peux te préparer à la guerre ñi nga xam ne ñoo ñu nga war a geeral ñoom ñu dellu ginnaaw et maintenant tu ne seras plus obligé d'aller en guerre mais sois prêt pour la guerre, pour le mortel combat avec Macky Sall. Une résistance au Sénégal est inévitable. ndax rajo Youssou Ndour dégg nañ ko ma dégg ay nit yu bari di communiquer nag di ci communiquer rajo Mille Collines bu Youssou nduur dégg nañ ko ndax lépp lu tàkk ci réew mi RFM la tàkkee lépp lu yàqu ci Sénégal ci télé Youssou Ndour boobu la jógee lépp lu taal suñu réew rajo Mille Collines ëllëg lépp lu dal Sénégal xam leen na ci rajo Youssou Ndour boobu la tàmbalee ndax man dinaa leen wax dara man Ousmane Tounkara mii ndaw si kan muy Gabriel kan ma nga xam ne moom lañu utilise woon pour mu doon yaayu Adji Sarr ba muy dugg ci combat bi ci télé Youssou Ndour boobu lañ ko tàmbalee dafa wàcc ci Sénégal jóge France ci coronavirus mu def publication ca la nga xam ne moom mooy page am Facebook waa TFM ñoo ko woo invité ko si saa si ñoom ñoo xam xamb taalu le cas Ousmane Sonko Adji Sarr TFM ñoo ko xamb TFM ñoo ko taal TFM ñoo ko distribuer TFM ñoo ko éparpillé même TFM boobu ñoom ñoo annoncé waat li nga xam ne moom mooy procès bi tey ci suba maa ngi jot message bi dinaa leen ko wax léegi maa ngi jot message bi tey ci suba sànq ci suba maa ngi jot message bi ma wax leen heure bi léegi à huit heures du matin chez moi déglu leen TFM xool leen ni ñu kontaane xool leen euh, xool leen euh, xool leen ni ñu kontaane xoolal xoolal ni ñu kontaane Alors, euh, dernière euh, minute ou info de dernière minute euh, sur l'affaire euh, Ousmane Sonko Adissar. Oui, Suleiman, information RFM, l'affaire Ousmane Sonko Adissar est renvoyée devant les chambres criminelles. Le doyen des juges a envoyé aux avocats des différentes parties Euh, un avis d'ordonnance de règlement euh, définitif au, au Conseil. Il n'y a pas de date hein, pour le procès qui est fixé dans ce document transmis aux, avocats, mais il est juste euh, dit dans ce courrier que le doyen des juges a envoyé aux avocats de, la partie de la défense qu'Ousmane Sonko est bien inculpé de viol et menaces de mort, des faits prévus et punis selon toujours le document par les articles bis et suivants du Code euh, pénale et la loi 2020-5 du janvier Et donc, euh, l'affaire Ousmane Sonko Adissar va être jugée euh, par les chambres criminelles euh, de la justice euh, sénégalaise. On reviendra peut-être avec tout détail plus tard. Merci, Babacar Fall. Voilà. déggal ngeen ko seen Mille Collines bu TFM pare nañu pour taal Sénégal waaye na ngeen xam ne Sénégal bis bu tàkkee yéen lañ koy xàmbee déglu leen ma de Sénégal bis bu tàkkee TFM lañ koy xàmbee dama bëgg ngeen xam rek. parce que la plupart des temps da ngay wax ak doomu aadama ki ngay waxal sax gisul masibaam moom ci boppam. boo leen déggee loi bi muy wax ni mooy loi bi Macky Sall créé woon pour criminaliser viol mooy loi Ousmane Sonko ça c'était la loi Ousmane Sonko c'est créé en 2020 par hasard en 2021 il utilise cette loi sur son opposant le plus puissant du Sénégal en 2022 ñu topp ci Ousmane Sonko on a amené toutes les preuves du monde indi nañu firnde yépp lu koy setal waaye déedéet nee nañu il est inculpé maanaam dañ koy atte damay wax ak yéen ngeen xam ne bis bu ñu attee le président Ousmane Sonko ci loi bi bis bu ñu attee Ousmane Sonko ci loi bi ce qui veut dire que dañ koy éliminer ci loi bii parce que loi bii moom moo tax ñu créé dama damay bëgg rek ngeen xam Ousmane Sonko bis buñ ko créé ci bis buñ ko atte ci loi bii dañ ko bëgg a éliminer ci loi bii Macky Sall nekk président à vie pour ngeen xam ko ndax kàddu la de te dafa am solo aujourd'hui c'est le 18 janvier 2023 laa leen indil kaddu yi bis bu ñu bàyyee Macky Sall mu atte Ousmane Sonko ci loi bi Macky Sall sera président du Sénégal à vie xam nga comme ñoom amuñu ngor tey gis naa sax ñeneen euh, euh, euh, taskatu du ma ne taskatu xibaar ay ay ay gone yu yu yu réer ci àddina ay xale yu réer yoo xam ne dañ leen di jox tuuti xaalis ñu wax li neex àdduna bi ay influenceur bari nañu ci Facebook bi bu leen leen déglu de ay xale ngeen bu leen leen déglu bépp influenceur bu la ne bul xeex pour sa bakkan bii bëggu la il faut xeex rek mbir mi moom xeex la ku ci ñàkk sa bakkan ajana nga jëm xale yi est-ce que mën naa leen fàttali li am ajana li ngeen gën a bëgg ci àdduna bi yëpp am na fa urul ay ni yaa nga ajana meew mu neex maa nga ajana lem bu neex baa nga ajana kër yu rafet yaa nga ajana amuloo benn problème mu àddina doo am problème mu ataaya gone yi laay waxal de bu leen kenn xoqotal wala tiital voilà boo demee boo dee da ngay perte jamais tu perds rien da ngay bénéficier boo dee da ngay bénéficier wu ajana nga jëm mooy xale yi jigéen yu rafet yi fa la ñu fekkee baax meew mu neex mi fa la fekkee baax noos bi la ngeen bëgg fa la fekkee baax te képp ku xeex ngir lii ajana nga jëm loolu man maa leen ko wax donc bu leen kenn gëmloo ne voilà da ngay dee perte non non non dee am bénéfice loolu nañ ko bàyyi xel da ngay dee am bénéfice ñun ñoo moom senegal bu dee xale yi jigéen yi tamit yéen fàttewuñ fàttewuñu leen ajana xale yu góor yu baax ya fa la ñu nekk baax baax bi yëpp fa la ne kër yu rafet yi fa la ne kër yu yanj yi fa la ne lii ngeen di gis ngeen di dem par exemple gis nit ku toog ci buntu jàkk ak ay yéreem di julli di fanaana julli di yendoo julli yow man nga koo am ci benn jour ndax sa lii soo ko joxee pour sa réew billaahi ajana nga jëm sa bakkan bi boo ko joxee pour Sénégal boo leen xamoon valeuram am bis bu ñu woote combat yow yaay jiitu ne gars yi tiire leen sama kaw ngir yàlla tiireel sama kaw ngir yàlla nga jël sama bakkan ndax fa nga jëm c'est très très très très spécial il faut être engagé lu leer laa leen wax de ku jël sa ba ku joxe sa bii ci lii xam nga taaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon na benn handicapé bu yor ñaari soxna bu bu yor ay soxna handicapé bi dafa ñëw ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ak njabootam mu ne leen man damay dem jihaad ah ñu ne ko yow yàlla jéggal na la jihad parce que tu es un mu ne ma non non non dama bëgg dem dem ñoo ñu dem boole ko ak yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ne yonent yàlla ah kii de suñu papa la waaye wérul se un handicapé waaye vraiment nee na moom bëggul toog fii yéen ngeen di dem ci xare yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ko mu ne ko yow yàlla xare bi wàcc na la lu tax nga bëgg a dem xare mu ne ko damaa bëgg dama bëgg yàlla jox ma kër ci àjjana ah yonent bi ne ko ko loolu de kenn mënu ci dara waa ji dem ci xare ba moom la ñu njëkk a rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ci gént ne waa ji mi ngi àjjana mu ñëw wax ko njabootam mu ne ko ah seen papa ji de gént naa ko mu nekk àjjana donc mes frères et sœurs encore une fois c'est pas être fanatique mais c'est être réaliste heure dee bu jotee jaam rek mooy dund il faut ngeen comprendre ne deyal sa réew xare la jihaad la te billahi boo deyee ci jihaad ajana nga jëm lépp loo leen yaakaar ne neex na ci àdduna bi toq la ci ajana toq toq la ci ajana toq xam nga man ñu bari duñu comprendre lii bu may wax damay wax ñu bari naan ma kaay jiite kaay jiite xare bi man jiite naa xare ndax li may def nii jiite xare la xam leen ne dee foo mën a nekk ci àdduna bi daf la ciy fekk te man tey kaddu laa pour yéen parce que man li may def nii mooy ngeen dégg lan moo nekk di xew ci ginnaaw Sénégal ku fa mën a wax Pape Alé Niang mi ñu doon waxal tëj nañ ko noppiloo nañ ko képp ku doon ku ñu doon waxal ci senegal noot nañ la téye nañu sa làmmiñ tëj nañ la prison donc man jeune les arrange pas arrangé wu ma leen fi ma nekk nii mënuñu jot ci man jurisprudence gañe naa leen ci fépp duma naa leen ba ñu tëdd ci suuf xam nañu ne mënuñu dara ci man te message yi may jàllale da ngeen koy dégg waaye xam leen ne heure dee bi bu jotee gis nga bi ma bu ma lijjantee li may lijjanti yëpp ba pare ba yéen ngeen dégg li ngeen di dégg yëpp ba pare dinaa ñëw joxe sama bakkan comme yéen parce que bu boobaa message bi jàll na xeex bi takk na lépp jolli na je serai là avec vous mais balaa message yi di jàll je ne bougerai pas un mètre je bu bougerai pas parce que fii ma nekk di fii ngeen di jotee xibaar yi waaye bu lépp jeexee incha allahu rabbi maa ngi yéen ci terrain bi bu soobee yàlla min colline bu jotee man ak yéen ci kaw terrain boobu la ñun ñëpp ñu faatu c'est fini parce que àjjana laa bëgg a mais nag qu'est-ce que ça sert bu ma toogee fii joxuma leen message bi war ma ñëw rek comme dof yi yëpp ñu jàpp ma ne yow it dootoo wax ñu tëj le ci biir kaso sax amaana sax ñu jël sa bakkan pour wax bi jeex loolu amul problème ndax ragaluma ko ndax bu ma ragaloon dee wala ragal a xeex biñ ma fi jàppee ma bu ma bu ñu paree ma noppi waaye tey laa waalo gën a ay ñoom xam nañ ma man on se connaît waaye komba bi mortel komba bi manta ñàkk il faut ñu xeex ak Macky Sall un procès politique se bat dans la rue lii du procès lii c'est un procès de liquidation de président du président Ousmane Sonko falaa koy tàmbalee nag gars yi ma ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Cheikh Yérim Seck Cheikh Seck c'est un mercenaire de la plume et du micro comme ni leen koy waxee toujours amul beneen tour nag ce qu'il est c'est un mercenaire du plume et euh, de la plume et du micro léegi nag balaa ñuy sori sax ci Cheikh Yérim Seck dama leen bëgg a yëgal homme politique boobu ngeen déggoon 2012 moom la ñu jàppoon ci corniche bi loolu 2012 la woon ma ñëw indil leen sax ojo yi ngeen déglu à plus forte raison bu ñu paree ci ojo yi man wax na ak ay journalistes man j'ai parlé avec des journalistes des journalistes qui sont très pertinents dans leur travail et qui sont très informés nee nañu ma waa ji ñu jàppoon ci corniche bi en 2012 C'était le président Macky Sall qui exerce aujourd'hui la présidence de la République moom la ñu jàppoon ci corniche bi Cheikh Yérim Seck soppi loolu def ko 2019 def ko le président Ousmane Sonko maa ngi leen di déglu loo audio ngeen déglu ko Ismaïla Ismaïla na nga def Cheikh Yérim sérieux wul de gis nga lii mu lay wax nii Ça s'était passé en 2012 et c'était Macky Sall lui-même qu'on avait pris sur la corniche. day benn Ousmane Sonko de lii bu ko bindee Macky Sall day xam moom la woon de ñun suñu candidat la woon kooku ñëpp a ko xamoon. so presse bi dañ dañ ci liggéey pour presse bi bañ ko génne lu leer laa la wax ñun la woon de suñu waa ji ma wax la ci lenn waa Walf yëpp a ko xam ñi nga Sidy Lamine Niass sa la découragé ci waa ji ci lamiñas bu fi nekkoon lépp lay toj ci digg bi kenn du wax voilà eu des informations réelles du tey sax nitu Macky Sall bi ko gën a jege mu ne ma man Ousmane pour wax pour dire vrai lu ma bañ bañ bañ Sonko mënumaa toog ci ay fen Macky Sall la ñu jàppoon ci corniche bi avec une gambienne Macky Sall jàppoon ci corniche bi avec une gambienne mu ne lu ma bañ bañ bañ Ousmane Sonko je ne vais pas dire du mensonge comme du ma dem ma toog ci li nga xam ne moom moo dul dëgg. Maham Diallo keroog bi muy ñëw ci kaa bi Sonko waxoon na leen ne posté ci page am Facebook contre le procès amin amin ànd ak Adji ba pare contre Ousmane Sonko da ngeen di fàttali ne Maham Diallo nee nañu leen Farba Ngom moo ko indi ci procès bii Farba Ngom moo travaillé ba maki Sall nommé Maham Diallo ne do ko bandum indi ko ci li nga xam ne moom mooy le cas Ousmane ko aji Sarr donc encore une fois pour ñu wax leen c'est Macky Sall lui-même qui était cette personne Macky Sall moom ci boppam moom moo nekkoon nit ka nga xam ne en 2012 journaliste sénégalais yi xam nañ ko ah nëbbuñu ko. un opposant Macky Sall la ñu tudd en ce moment à Ablaye Wade journaliste yi xam nañ ko te kenn du ko weddi ne leen ñu ñu génn ñu bind ko kenn du weddi ne Macky Sall la ñu bindoon un homme politique influent c'était Macky Sall avec la Gambienne au Corniche en 2012 Cheikh Yérim Sepp soppi ko def ko tey kii nga xam ne moom mooy le président Ousmane Sonko gars yi dama leen bëgg a indil tuuti ci Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck euh, comme vous le connaissez de la plume du micro sénégalais un mercenaire de la plume et du micro sénégalais euh, qui a été accusé de viol et qui a été inculpé et qui a été condamné déggu ma de amul benn dara benn lu ci rax maanaam procès bu bu bu moom ci boppam Cheikh Yérim Seck mu euh, avoué que ne xale bu jigéen bi moo ko jox mu avoué ne euh, dafa dugal tuuti xale bu jigéen bi ne ko génneel mu bës mu dugal mu avoué ne xale bu jigéen bi moo nàcc mu avoué ne deret amoon na ci lal bi lii yëpp Cheikh Yérim Seck avoué comme niñ ko ko accusé il a tout avoué donc moom Cheikh Yérim Seck ñu atte ko teg ko daan ñetti at ak amande pour ngeen dégg encore une fois Cheikh Yérim Seck moom lañu ñu inculpé moom la ñu condamné moom la ñu teg amande mais xam nga ndeysaan sénégalais yi ñoo naïf rek mais constance barki demb barkaati démb j'ai eu un ami très très proche bu ma ne ah Cheikh Yérim Seck de bind na benn livre ba dédicacé nangam Sonko dédicacé diw ci waxtaan ak xarit bi balaa sax may xam xam li nekk ci livre bi dama ne xarit bi mu ne ma waaw ma ne ko Cheikh Yérim est un serpent